waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàtt ay far dem faatu ñu joxe seen gannaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu yi cere yi gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko biir nag laaw la ma faraañse نوغن لام دي جول بيري يارا رينا كدوم جي جال فوت تارا نوغن رينا كالمامي عبد بوكر مصيبة وحنا جهاديا قضى وبيعا ربحا ولسواي كل كلب نبحا سما جهاد مدون جهاد جيخنا تجيجي سلام جاي تنوونا بيب نون نون فوفو باتو كلب لجفنكو فوفو ولسواي كل كلب نبحا bépp xaj buy baw dootul jóg jëm ci man jubluwu ci nag xaj yi ñu xam xaj yi baw waaye kinaaya la gu leer goo xam ne am na ñu tax muy wax te ñooñu ku dund ci réew mi gis leer gis gis dégg nga nasaraan yi nga xam ne ñoo ko fi indi woon da xam ni sëñ Tuubaa bëgg a wax foofu mu ne sama sama sama jihaad jeex na sama njaay tono woona euh, bépp noon bu jógati jëm ci man yàlla daq ko dootuma jublooti ashkuruhu kon maa ngi koy sant ndax ab abdala كما كفاني الحرب والجلاله فقال نما خري فقال مخلوق خير لما جايون تما يوم بنيار فك يا غروم نيت فان ويراك نيت لاج كح يو ييب يالا انديل نما يوم كو رامبلاسي يو خامني تي لاي خيوول لو ماكسام نجي بوتا كوما ياكار تي لولا با اجنا دو جيخ بو تكو دي جوغي تي يالا تاخوما كو جوك سو نيغل مانام تري لو جوغي تي يالا دينغ تاخاتوما كو جوك جاجي جوغي تي يالا تاخاتوما كو جوك سماك دوندو با اجنا عيد لا لم ينحني زجر ولا وعيد وعمري الى الجنان عيد لول دال موي ليغا خامني ما ديس نكو تانك في سي ليبرويل سي مونتاغ سين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كون سيرين بي ياغول في دي ليبرويل ناخ غوفرنور بيغا خامنتيني بي مو دون غوفرنور بي في نيكون دون نا جوت اي رابور يو بايكو ndakaru yoo xamante ni tiitaloon na ko ba tax na sëriñ bi bi mu ñëwee Libreville yàggu fi dara rek mu daal di koy jàllale sëriñ Moussa Ka wax na ni bu mu ñëwee euh, gouverneur bi daf ko ni juróomi weer laa dese tey ci réew mi ndekoon dinaa la yor. juróomi weer laa dese tey ci réew danaa yow mi Cheikh Bamba naa ko yàlla mooy saa wéttal Muhammad Rasul mooy saa wattal. kon moom gouverneur bi lan la def dafa daal di jël sëriñ bi jàllale ko ci koo xamante ni bii ab sénégalais la woon ñu doon ko wax Mambay te turam dëgg-dëgg di Mambay Fara Biram Lo doonoon chef de poste mi nga xamante ni bii moo nekkoon Lodima sëriñ Moussa wax na ni. keroog la ban ba wàcc wastab londi ma ajis bini song yow du du yor di leen duma foofee la fekk kañu naa bali isa munaa ko yaay bali isa iblisa munaa ko may bali is haddu waañ la danaa le dimbili sa jaamu waañ la moom duuduma mbay moomu lu nekk won na ko bi foofu dégg nga sëriñ Moussa mu wax ni naa di ko sëriñ bi sotti comme ndox mu def sobeeg sangara buusu gum tuux keroog la ban boolu sii di maabo ne ko wutal ndox mu laab ak saabu mooy tukkulóor ba daa commandé poste ba ban baa taxoon ba faatuwul ca peste ba moo ko fa daa rootal di duy ay satalaam di doxay soxlaam di joxantey salaam duudu may aaye ko rootal ban ba ngir bon ngaa kañaan nga fii maayoon ba ma nga naa ko dee ko sowi bis bu nekk ak satalaam nay mar di xiir bu mu si dee nga naa ko lépp luñ ma fayati ci sama weer moom laa ko faf di joxati caro la ko feetal moom mooy ba dal boobaa bu ñu ànd dem layoo ji kër gouverneur ñu déplacé duudu ban ba moy góor mu ñaane dappel waaja ba interdit ñu daal di koy lisaase njool ma perdi sama maat na gaje def commandang ba na mu dee mu tollu dëkke dang-dang Cheikh ban ba faf di yónni Sidi Maabo mu daal faf jébbalu kon Sidi Maabo boobu nga xamante de bii seq na loolu ak euh, Duudu Mbaye moom dafa mujj ci bi sëriñ bi nag bi mu Libreville ngir ñu di ko Mayumba bi ngeen jàkkaar lool di Cap di Port nga ni bii fi sëriñ bi wàccoon te capitalu pétrole Gabon ngeen barab boobu itam di dëkk boobu di Port-Gentil mooy capital économique bu Gabon kon fii Sidi Mabo moo daan surveillant bi nga xamante ni moo daan wattu faar bi ngeen jàkkaar lool te bi muy jàppale sëriñ bi ba mujj jébbalu ci moom loolu taxoon na ñu dàq ko waaye sunu boroom may ko lu gën loola ndax benn comptoir commercial ñoko ko mujj jël muy liggéey euh, fofu kon sëriñ bi bi mu bàyyi ko fii ci euh, Cap Lopez mën nañu wax ni ci weeru avril 1896 ci la sëriñ bi ñëw Mayumba ndax su ñu demee ci archive nationale de France euh, bon de paiement yi nga xamante ni ci la ñu daan fay prisonniers yi maanaam déportés yi dinañu gis ni ci weeru avril bon de paiement bu sëriñ bi ak bu Samba Lawbe ñoom la ñu boole sëriñ bi mu ngi amoon rent bopp fukki dërëm la woon bu ñu ko daan jox par weer waaye moom musta laal euh, xaalis boobe barab bi nag di Mayumba yu bare bari xew na fi ndax jàmbaari sëriñ Touba ja di sëriñ Modou Dagana fii la fekk sëriñ Touba dégg nga sëriñ Moussa mu wax ni koy di laaj Cheikh Modou moom Dagana ba mu laa gisee ak Cheikh Bamba booba sori na xëy na kokki guy bisub talaata namm ca géej ga ba ñu na xatmaata ba weer wa dellu see ak bis ba la doog a seeru Bamba ngir pas-pas ba kon sëñ Modou Dagana fii la fekk ku tedd ki xadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba barab bi ngeen gis itam fi la sëriñ bi wooree weeru koor wi nga xamante ni bu dog jotee amul lu mu dogee bu xëdd jotee amul lu mu xëddee bu dog mosaan jot xobi garab yi ci lay witt bu ko yéyee wanaasu ndox ma moom la daan dogee kooram kere bi nga xamante ni bii Shahbaan mi ngi koy tàggu muy séentu shahru Ramadan di weeru koor wa la jël xalimaam moom ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba lii la teeroo weeru koor wa yaa xayra dayfin ataa bil bishri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 lii la jëlaat xalimaam tàggoo ko shahru ramadan mubarak fii ci Mayumba nag li ñu ci gën a ràññee mooy humidité boo xamante ni bii ànd na ko ak taw bu baree bari ndax xam ngeen ni moom fii amu fi woon néeg ci mbaar rekk la nekkoon léeg-léeg taw ba ci kawam la daan taw li ngeen jàkkaar lool mooy ñetti at yu njëkk yi sëriñ bi njëkk a def ci Mayomba muy 1896 1897 ak 1898 fukki weer ak ñaar tubaab yi taatal nañu natt nañu taw ak tangor bi nga xamanteni bi man nañu wax ni ci koku tedd ki khadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba la ko def ci wéru janvier ba température minima bi 23,68 virgule la maxima bi di 31,25 virgule nombre de jours yi mu taw fukki fan ak ben la taw ci wéru janvier la mu fa taw ci ay millimètre toll na ci 216,16 virgule muy ñaar téeméeri millimètre ak fukki millimètre ak juróom-benn yu tombal fukk ak juróom-benn weeru février ba température minimum minima ba 23,42 virgule 42 la maxima bi di 31,27 la taw ci wéru février 1896 147 di téméri millimètres ak ñeent fuk ak juroom ñaar mom la taw wéru mars wa température bi gënoon a basse gënoon a ndaw mo don 23,19 fa tangoro gënoon a méttee fan ak ñet la taw ci wéru mars

yu tom ak ñaar yu tombal ñaar fukk ak juróom-benn weeru mai wa température bi gënoon na ndaw moo doon vingt trois virgule zéro huit bi gënoon a tàng doonoon trente et un vingt cinq juróom-ñeenti fan la taw ci weeru mai wa cent soixante six virgule six millimètres la ci taw muy téeméeri millimètres ak juróom-benn fukk yu tombal juróom-benn. weeru juin wi nga xamante ni moo juillet ak août mën nañu wax ni moo doon seenu noor ndax taw ba.

28,8 virgule 8 moo doon maximum bi benn fan la ci taw 5,6 virgule la ci taw weeru ut wa température minimum bi mi ngi doonoon 20 virgule maximum bi doon 29.13 point ñeenti fan la taw ci weeru ut 20,5 virgule la taw di ñaar fukki millimètres yu tombal juróom weeru septembre wa température minimum bi mi ngi doonoon 21 virgule maximum donne 29,60. Foukifan Agnent, le taux, Tiveru, septembre 1896, le mouffa taux, qui est 1 mm, donne 179,8. du Témer, Vers octobre, la température minimale donne 22,3. Maximum donne 29,91. Nyar Foukifan Agnent, taux, octobre, la photo fa taw ci ay millimètres doon na trois millimètres ak juróom ben fuk ak ben yu tombal ñaar ak wéru novembre température minima bi donon 22,31 Maximum maxima bi donon 30,74 ñaar fukki fan ak ñett la taw ci wéru novembre température ba mo ëpp. ñaar fukki fan ñeent yi mu tawoon ci octobre ndax ñaar fukki fan ak ñett yi mu taw ci novembre taw na fa 430 virgule 5 millimètres te bu ñu jàppee ni tey ren ci Sénégal ci Daarul Muxti nawet ba kenn ràññeelewul ni nawet bu baax la te la mu taw ci nawet bi yépp bu ñu ko dajalee 401 euh, virgule 7 millimètres la ñu gis ni kon la mu taw ci weeru novembre woowu boo dajale woon ab nawet ci Sénégal lamu taw ci wenn wër wa rek mo ëpp limu taw ci nawetu Sénégal bi nga xamanteni sénégalais yépp d'accord nañu ni baxna wëru décembre wa euh, température minimum bi mi ngi doon 22,50 maximum bi doon 30,6 fukki ak ñent la taw ci décembre 1896 taw na ca 312,2 mm tombal ñaar di ñetti témèr millimètres ak fukk ak ñaar yu tombal ñaar moom la taw ci weeru décembre kon at mi yëpp di fukki weer ak ñaar température moyenne bi mi ngi doonoon 22 virgule 31 maximum bi doonoon 30 virgule 55 total maanaam la ma fa taw ci ay bis ci at mi doon na téeméeri bis ak fanweeri bis ak juróom-ñett la mu fa taw ci ay millimètres te miñ ko taw ci kaw ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba doon na 2392,02 virgule nawetub Sénégal bu baax du ëpp 500 millimètres na wax naa leen ni ren nawet bi ca Darou Mouti gëm a dëkk dem naa ci chef serre la mu fa taw ci ay millimètres doon na ñeenti téeméeri millimètres ak benn yu tombal juróom-ñaar at moomu nag taw na fa ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar yu tombal ñaar te yooyu yépp mu ngi ko taw ci kaw ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ndax amul woon néeg tubaab yi wax nañu ni li leen gënoon a jaaxal mooy bu masaa soob di taw ni muy jële gaal yi dugal ko ak bu sewetee ni mu koy génnee di tàmbaliwaat mbindam te muy bind ba mu tàmbaliwaat sóob rek ci lu gaaw a gaaw a gaaw lay fat gaal yépp waaye Faransé lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal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 rey nag ki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar